max mardi 7 mai 2024 dal leen ak jàmm yéen mbokk yi nga xam ne yéen a ñu tàmm di ñu topp fii ci Info 7 TV tàmm ko ba di fi taatanee xabaar xabaar tey nag dañ koy doore ci xëtuk yéenekaay gii di Libération mi nga xam ne tey nag dafa daal di génnee ay mbuxum yoo xam ne am na ci société yoo xam ne ñu ngi nekkee fii ci réewum Sénégal di ay société yi yëngu ci wàllu mine nee daal fii ci réewum Sénégal diggante 2015 ak 2018 jéggal nañ société yooyu daal defal na leen ab cadeau boo xam ne toll na ci lu tolloog 234 virgule 989 milliards de francs CFA loo xam ne daal ay TVA la mooy taxe yoo xam ne wareesoon nañ koo fay fii ci réewum Sénégal lu nu mel état daal leen ko jéggal loolu nag mu ngi soxal société yi bu fekkee ñii di waa sim la ñoom nag daal dinañ leen gàtte lu tolloog 34 virgule 2 milliards faneeri milliards ak ñeenti yu toftal ñaar téeméeri millions bu fekkee ñii di waa ciment du Sahel la 25 virgule 8 milliards maanaam ñaar fukki milliards juróom yu toftal juróom ñetti bu fekkee garde-côte opération lan ñoom nag toll nañ ci lu tolloog 23 virgule 9 milliards ñaar fukk ak ñett ak juróom ñeenti téeméeri millions ñaar fukki milliards ak ñett ak juróom ñeenti téeméeri millions bu fekkee ñii di waa ciment Dangote la ñoom nag daal dinañoo am lu toll ci douze virgule trois milliards maanaam fukki milliards ak ñaar yu toftal euh, ñetti millions bu fekkee ñii di waa Sabodala Gold opérationnel la ñoom nag am nañu lu tolloog huit virgule deux milliards juróom ñetti milliards yu toftal ñaar téeméer ci ay euh, millions lu tolloog ñi nga xam ne nag ñoom ñoo di waa Mako exploitation ñoom itam am nañu lu tolloog cinq virgule quatre milliards de francs CFA yoo xam ne wareesoon na ko fay lii di état ci ay TVA bu fekkee ñii di. petro minière la ñoom SA ñoom itam am nañu tolloog 6 virgule 8 milliards yoo xam ne soon na ko fay bu fekkee ñi di ASM Sénégal ñoom itam daal nañoo tolloog 1 virgule 1 milliard benn milliard bu toftal as lëf loo xam ne wareesoon nañ ko fay état Sénégal loolu lépp nag jëm ci ay TVA yoo xam ne waroon nañ ko fay muy ay taxes yi waroon a jox état du Sénégal état nag jéggal leen ko waaye nag loolu lépp bu ñu ko xoolee daal état dina ci perte lu mu néew néew cinquante 159 milliards virgule 800 Euh, vingt-neuf millions maanaam ñaar téeméeri milliards ak juróom fukk ak juróom-ñeent yu toftal juróom-ñetti téeméeri millions ak ñaar fukk ak juróom-ñeent bu ñu sukkandikoo ci libération mi joxe xabaar boobee muy ay scandale financier yoo xam ne am na jëm ci wàllu miin ci ay TVA yu ñu waroon a fay état du Sénégal mu daal di si ñàkk alal jool yépp nu wéyal wax ci beneenub xabaar bu soxal liggéey yi nga xam ne njiit réew bu Sénégal président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye da koo dakkaloon fële ca corniche ba neneen daal booy la liggéey doo moytu léegi tey mu dooraat ñu buñ ndikoo ci le quotidien mi joxe xabaar bi ne nañ bokk na ci société yi nga xam ne ñoo doon amal liggéey boobu muy BTP ñoom nag njiit réew ma dalaloon na ñi nga xam ne ni ñoom ñooy ñu moomee yooyu le bërëb moom ak liggéeykat ya délégation bu nag ginnaaw bi ñu demee gisee nañ ak njiitu réew mi waaye giseet ak euh, jëwriñ ñu njëkk ji muy Ousmane Sonko buñ ndikoo ci seeni xabaar ne nañ daal waxtaanoo bokk na ci daal fexe ba dellu ci waat liggéey bi nga xam ne taxawaloon nañ ko foofu ca corniche ba ngir daal di ko wéyal li waral loolu nag nee ñoom ñee doon waxtaan ak njiit réew ma xam ne nañ ko daal yooyu la liggéey buñ ko taxawalee dana jur jafe-jafe ci li nga xam ne mooy ci port bi nga xam ne yenn ci ay matériel ñu nga fa fii lañ jëm ci woon di wàcc ngir ñu amal bi waaye yenn ci liggéeykat yoo xam ne ñu ngi fa woon loolu le mën naa jurug jafe-jafe ba buñ sukkandikoo ci surnal bii di Le Quotidien daal mu ngay xam ne ne lu nu men boo moytu léegi tey liggéey yooyu ca corniche dinañ ko daal di wéyalaat ginnaaw ndajeem waxtaan mi nga xam ne ñii moomee bërëb yooye ak autorités yi nekkee ci réew mi daal nañ koo amal muy ab euh, gisee boo xam ne gisee nañ ko njort ne daal yooyu les travaux dina dooraat du yàggati dara ci corniche bi ñu fàttale nag njiit réew mi dafa daal di woon jël dogal dakkal ay liggéey yu bëri yoo xam ne ñu ngi ko doon amal muy ay tabax yoo xam ne nii dafa soxaloon yenn ci ay bërëb fii ci réew mi waaye fële ca corniche bu Dakar nag boo moytu liggéeyee dana reprendre du yàggati dara buñ sukkandikoo ci Le Quotidien mi joxe xabaar bi nu wax ci beneen xabaar bu soxal ki fi nekkoon jëwriñ ji ñu dénk wàllu dem ak dikk moom Mansour fay jamono ji nekk maire bu Ndar moom daal ñu ngi koy tuddaat lu jëm ci wàllum oto moom moome di Mansour fay daak nee nañ benn oto 4 x boo xam ne nii dafa yebaloon ab safooram fële ca Dakar dem dikk ngir mu daal di koo jël moom mii di Mansour fay daal ñi ngay xam ne ne boobu marque Toyota la di oto boo xam ne matricule ba mu nga nekk AA 097DC euh, nee nañ oto boobu daal bu ñu sukkandikoo ci les comi xabaar bi nee nañ moom mii di Mansour nekk bon frère njiit réew mi fi woon di président Macky Sall nekk itam jëruñ ji ñu dénkoon walla dem ak dikk muy transport moom moom moome daal moom dëggal na lu nu meen ginnaaw bi nga xam ne dafa yebaloon ab safooram foofu ca société Dakar dem dikk ngir mu jëli oto boobe di ab 4 x ginnaaw lu nu mel nag nee nañ ñii di waa Les Échos jéem nañ koo laaj ci mbir ma waaye nag wax na leen ne lu nu mel am na waaye daal di wut ñëw ci détail ak oto ba lan moo tax ñu daal di ko koy jox moom mii di Mansour Faye muy benn 4 x waaye itam ñoom daal nañu sollicité ki nga xam ne moo jiite woon Dakar dem dikk di Omar Bun Xatab si la waaye nag moom itam daal di wut laaj tontu ci détails yi nga xam ne doon nañ ko ko laaj lépp waaye ñii di Les daal ñu nga xam ne moom Mansour Faye daal job bu ci altine gi yeebaloon na safooram foofu ca société bi di Dakar dem dikk ngir mu jëli fa ab oto 4 x boo xamante ni moom mii di man Mansour Faye daal jamono ji moo ko yor ñu jàpp ne société di Dakar dem dikk moo ko daal di woon jox lu wéyal xabaar yi wax ci beneenub xabaar bu soxal li nga xam ne moom mooy ay bata yoo xam ne dañ doon nappee fii ci waaxi Sénégal jëwriñ ji nga xam ne moom lañ dénk wàllum napp gi moom nag daal na publier list ba nga xam ne moo soxal mbooleem bato yi nga xam ne ñoo nekkee fii ci waaxi Sénégal di fi napp ci géej gi loolu nag xayma gi toll na ci téeméeri bato ak fanweer muy 132 bato yoo xam ne ay bato yoo xam ne ñu ngi ko def ci turu réewum Sénégal waaye nag bu fekkee bato étranger yi toll nañ ci 19 bato étranger yoo xam ne ni ñoom ñoo nekkee fii ci waaxi Sénégal di fi nappee loolu nag mu ngi ko daal di fësal nit ki démb ci altine gi loolu nekk na jëpp jëm ci li nga xamante ni moom mooy engagement yi nga xam ne bokk na ci engagement yi ñu amoon ñoom gouvernement bi ne bu ñu yegg ci réew mi dinañ fexe ba lépp loo xam ne jëm na ci wàllum transparence ngir ñu xam li nga xam ne nii moom mooy sunuy ressource rawatina li nga xam ne mooy géej gi nga xam ne sunu patrimoine national la sunu moomeelu bopp la ñu fexe ba jaarale mbiri ci yoon loolu nag kii di jëwriñ ji nga ko dénk di doctor faatu Diouf moo daal di publier lu nu men mu toll ci téeméer ak faneeri bato ak ñaar yoo xamante ni yi turu Sénégal lañ nekk waaye itam am du tolloog 19 bateaux étrangers yoo xam ne ñu ngi nappee fii ci waaqi Sénégal muy bataaxal boo xam ne démb lañ ko daal di publier jëwriñ ji dénk wàllum napp mi daal di ko amal ci altina niki démb yemook 6 mai 2024. nu wax ci beneen xabaar bu soxal ki nga xam ne nekkoon na fi jëwriñ moom moomee di Oulimata Sarr mu ngi ñuy xamal ne. gisee na ak njiit mu yees bii di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom mii fi nekkoon ministère de l' économie et du ak coopération moom mii di Oulimata Sarr daal mu ngi xam ne gisee naa njiit réew bu Sénégal président Bassirou Diomaye Diakhar Faye moom mooy daal mu nga xam ne nag am na confiance ci moom ngir rek muy wéy di des di liggéey ak gouvernement bu yees bile. moom mii di Oulimata Sarr moomee nag nga xam ne jamono jile mu ngi daal di woon nekk directeur régional bu bureau de l'ONU Femmes ca Dakar moom moomee daal mu ngi ñuy xamal ne. Euh, lu jëm ci wàllum ressources naturelles yi nga xamante ni ñoo nekkee fii ci Sénégal daal di ITIE bu nu moytu dina tàbbi ci ay yoxoom loolu nag ginnaaw ndaje mi nga xam ne ndaje na ko njiitu réew bu yees bi di président Bassirou Diomaye Diakhar fay ngir rek yooyu les ressources naturelles yi nga xam ne bokk na ci lii di wàllum mine ak li nga xamante ni moo di gaz ba ci pétrole yooyu boo moytu danañ ko ko dénk ngir mu daal di ko saytu. moom jëwriñ jooju nag nekkoon fi ci nguuru président Macky Sall la ministre bu ñu dénk lii di plan ak coopération moom Oulimata Sarr daal mu nga xam ne nii lu nu men daal dinañ ko waxtaanee moom ak njiit réew bu yees bi di président ba Bassirou Diomaye Diakhar fay initiative bu ñu am nag fexe ba yaatal lu jëm ci ressources naturelles yooyu fexe ba koomuk Sénégal gën a yaatu fii ak janvier 2025 bu nu dëgmal moom jëwriñ jooje moo daal di fesal xabaar boobe ca page Facebook am moom jëwriñ jii di Oulimata Sarr ci nguuruk président Macky Sall mu nekkoon jëwriñ diñ dénk plan ak coopération gisee na ak njiit bu Sénégal président Bassirou Diomaye fay foofu ca pale de la république nu wax ci beneen xabaar bu soxal kii di Bassirou Diop ay mbiram moom mi nga xam ne mu nga bokkoon ci série bii di dera dérapage moom nag tey jii lañ war a siise ay mbiram foofu ca tribunal bu ndakaaru ca chambre criminelle moom ba Bassirou Diop moom na nga xam ne niki tey jii ci juróom-ñaari fan ci weeru mai 2024 lañ war a amal ak atte jëmale ci mbiram moome bu nu fàttale na moom mu ngi bokkoon ci série bii di Dexa Pass moom nag ay mbiram bu nu fàttalee mu ngi jëmoon ci ay tuuma yoo xam ne tegoon nañ ko ci kawam waaye nag kii di katam di maître Ciré Clédor Ly mu nga xam ne na daal lu jëm ci procédure kii di ab kiliyaanam mbir yee nag jaarut yoon ndax nag fukki fan ak juróom benn ci weeru mais bu ñu génn am na mbir yu ñu ci amal daal yoo xam ne nii nañ ko waroon a amalee jaarewul yoon ba tax na daal muy sàkku ca ñii di waa tribunal ñu daal di neenal procédure boobee moom moome di Basir Diop nag bu nu fàttalee ay mbiram mu ngi amoon ca atum 2022 fukki fan ak juróom ci weerum soin ginnaaw bi nga xam ne nii moom daal ca bërëbum dëkkoon de appartement am daal dañ fa nemmeekoon ne moom moom daal am na ay xeeti mbir yi fa nekk na xam ne nii dafa jëm ci wàllum drogue ginnaaw lu nu mel nag si la ñii di wéy takk dere demoon ci këram ginnaaw bañ fa demee nag fekkoon nañ fa ay xeeti mbir yoo xam ne daal day transformé ay mbir di ko yëngu ci wàllum drogue ba tax na moom jamono ji li koy toppee mooy lu jëm ci wàllum trafiquant de drogue ba tax na moom nag ay mbiram tey jii ci talaata gi lañ koy daal di àtte fële ca tribunal chambre criminelle ba xam ay mbiram fan lay mujj danañ ci dellu siwaat moom mbirum kii di Basiiru Jóob moomee ñu wax ci beneen xabaar fële ca poor autonome bu Dakar ñoom nag am na ñett ñoo xam ne daal nee nañ dañ fa demoon di amal ak càcc bokk na ci kenn koo xam ne nag moom lañ teg ci ñett ñooñ doon amal sàcc mu ngi wéy ci agéy moom moomi nag am na lu tolloog ñaar fukki at ak juróom ñaar ñoom nag lañ doon sàcc mooy lu jëm ci ay pneu waaye itam lu jëm ci yenn yi nga xam ne nii moom la ñuy kale lii di conteneur yi foofa ca poor bu ndakaaru lañ doon amale lu nu mel ni ki samedi yem ak fan ci weeru mai lañ doon amal càcc googu boori 3 heures du matin ginnaaw daal ba leen benn visil koo xam ne daal mooy wëttu barab boobe gisee si la daal di njort ne ñi ay def ko te ñaawteef lañ si la ko yëgal ñi nga xam ne ñoom ñooy takk der yi nekkee foofu ca beleer nga xam ne sax jamono jooju ñu ngi amal patrie si tàng-tàng lañ yëg ci bërëb ba ñett ña nag ñaar ña dañoo daw kenn ka lañ teg loxo muy wuyee ci ag moom moome nag ginnaaw bi ñu ko yóbboo ci kanam yoon laaj ko daal mu ngay xam ne ne lii mooy lu njëkk muy bokk ci mbir yu nu men moom nag bu ñu fàttalee mu ngi dëkkee fële ca Kër Massar ñeneen ña nag jamono jii ñu ngi leen di wërandi waaye moom mi di àggee daal di woon nañ ko placé garde à vue naka noonu nag ñu daal di ko defeere ca parquet ba jamono ji sax dal di nañ ko yóbbu mandat de dépôt xam ne moom mooy ca kaso moom moomee nag bokk na si liñ koy toppee mooy ak càcc goo xam ne da ngeen ci ànd def mbooloo groupe di càcc waaye càcc goo xamante ni dangeen ko amal ci guddi kon moom jamono ji daal nañ ko placé su mandat de dépôt moom àggee moom it dëkk ca Kër Massar ginnaaw ba ñamewoon fële ca port autonome bu Dakar di fa amal ay càcc ci ay pneu yoo xam ne nii dañ ko doon sàcc foofu ak yenn ci yoo xam ne ni matériel yi ñuy jëfandikoo ci wàllum conteneur yi la te lu nu ko sàccaan ba noppi dañ koy jaay ci prix bu yomb. lu wax ci xabaar bi soxal njiitu réew bu Sénégal président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye tey jëlee ci suba gi la file ci réewum Sénégal capitalam Dakaru daal di wutali fële ca capital bu réewum Côte d'Ivoire de Abidjan moom mii di njiit réew bu Sénégal président Bassirou Diomaye Faye bii mooy ñeenteelu génnam boo xam ne mu ngi koy amal di soxal wàllum diplomasi maanaam waxtaan ak yeneen réew yi nga xam ne ñoo déndoog lii di réewum Sénégal ba mu ko dooree fële ca Mauritanie dem ca Gambie dem ca Guinée Bissau tey nag mu ngay dem fële ca réewum euh, Côte d'Ivoire ngir giseeg naataangoom bii di Alassane man Ouattara nekk njiit réew bu Côte d'Ivoire loolu lépp nag jëm ci kaye bi nga xam ne daal na ko amal soxol li jëm ci wàllum yokk relation diggante Sénégal ak yeneen réew yi muy wàllum diplomatie moom président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye kon tey jii mu nga fële ca réewum Côte waar capitale am di Abidjan dina fa gisee ak njiit réew ba di Alassane Dramane Ouattara bu noppee si tukki boobee nag dina dellu siwaat fii ci Sénégal niki tey jile ci ngoon gi. xale xabaar yi ci xabaar bi lee soxal tey jii mooy juróom-ñaari fan ci weeru mai 2012 juróom-ñaari fan ci weeru mai 2024 fukki at ak ñaar ginnaaw bi ñu dëddoo moom ki fi nekkoon footballkat boobee di Syll François Bocandé moom moome daal moom mooy tey ñi koy fàttaliku moom Syll François Bocandé moome. nga xam ne depuis le 7 mai 2012 la ñu dëdd woon ba mu ñu dëdd na amoon tolloog juróom fukki at ak ñett moom Syll François Bocandé moom nag nga xamante ni liggéey na lu bare bari ci équipe nationale bu Sénégal moom moom moomi nag am na fi lu tolloog 73 sélection maanaam juróom ñaar fukk ak ñetti yoon yoo xam ne sélectionné nañ ko ci équipe nationale bu Sénégal mu dugal fi lu tolloog ñaar fukki bii moom moom moomi sax def fi jaloore yi bare bari yoo xam ne mëneesu ko lim ci wàllum tàggat yaram kon mbokk yi xabaar yi fii lay buuree ñu gërëm leen sant leen ci topp ngeen di topp info 7 TV tàmm ko defi taataane xabaar bu fi yeneen xabaar ruusee dinañ ñëw faram-fàcce ko dégtal leen ko yéen ñi nga xam ne yéen ay suñuy téléspectateur fii ci info 7 TV ñu ngi leen di wax rek ngeen wéy di abonné di partager di bës lii di cloche de notification bi dina tax lépp luñ dugal ci xabaar ngeen man koo jot jërë ngeen jëf